Filip Filip sar benn wàll ci linjiil di bataaxal bu yàlla may pool mu bind ko waa filip nun pool ak timote jaami kirist yeesu noo leen di bind yéen gaay yàlla yu sell yépp ci dëkku filip yi bokk ci kirist yeesu yéen ak seeni njiit ak ñiy toppatoo yëfi mbooloo mi na leen yàlla sunu baay ak borom bi yeesu kirist may yiw ak jàmm yoon wu ma leen di xalaat maa ngi sant yàlla sama boroom te saa su ma leen di ñaanal yéen ñépp duma noppee bég ndax seen ànd ak man ci tas xabaar bu baax bi ca ndoorte la ba tey wóor na ma ne yàlla mi tàmbalee jëf ju baax ji ci yéen dina ci sax ba bésu kirist yeesu ñëw te juumuma ci li ma xalaat loolu ci yéen ñépp ndaxte def naa leen ci sama xol ba tax fii ci kaso bi ci taxawal xabaar bu baax bi ak lawal ko yéen ñépp am ngeen wàll ak man ci yiwu yàlla ndaxte yàlla seede ne sama xol seey na ci yéen ñépp ci biir cofeelu kirist yeesu li ma leen di ñaanal nag mooy lii na seen mbëggeel di yokk tey gën a tar jaar ci xam ak xàmmi gu wér na ngeen sax noonu ci yi gën a rafet ngeen am xol bu laab te bañ a am benn sikk ba bésu kirist ñëw ne seen xol meññ njub ba ni gàññ jaar ci kirist yeesu ci ndamul yàlla ak cantam dama bëgg mbokk yi ngeen xam lii li ma dal taxul xabaar bu baax dellu ginnaaw waaye da ko jëmale kanam noonu ñuy wattu buur bi ak ñépp gis nañu bu leer ne turu kirist rekk a tax ñu jàpp ma te it mbokk yu bari takk nañu seeni fit ci li ñu gis samay buum ba tax ñu gën a ñeme ci wax kàddu yàlla ci lu àndul ak genn tiit am na ñuy waare ci turu kirist ci kaw kiñaan ak xëccoo waaye ñi ci des ci kaw cofeel ak xol bu laab ndaxte xam nañu ne yàlla moo ma teg fii ngir ma taxawal xabaar bu baax bi waaye ñële amuñu xol bu laab te seen njariñu bopp rekk a tax ñuy yégle turu kirist di wut a fedd li samay buum ak coono lu ci gën nag xanaa lii rekk turu kirist jolli na ci nii mbaa muy ci naaféq muy ci dëgg bég naa ci te dinaa ci bégeti ndaxte xam naa ni loolu lépp mu ngi jëm ci sama mucc jaar ci seeni ñaan ak ndimbalu xelum Yeesu Kirist mi ma yàllay yéwénal ndaxte sama xinte ak sama yaakaar mooy ma bañ rus ci lenn waaye sama yaram feeñal ndamu Kirist ma ànd ci ak kóolute gu mat su may dund mbaa may dee moom laa daan def démb te moom laay def tey ndaxte su ma dundee kirist laay noyyee te su ma deeyee xéewal lay doon ci man su ma yàlla bàyyee ci àddina sas wu am njariñ la ci man am naa xel ñaar te xawma bi ci gën am naa yéene jóge fi fekk kirist te looloo gën fuuf waaye ma des fi ci àddina moo gën ci yéen loolu wóor na ma kon xam naa ne dinaa fi des di leen taxawu yéen ñépp ngir seen ngëm yokk ànd ak mbég noonu dinaa dellusi ci yéen ngir sama taxawaay gëna lawal seen mbég ci kirist yeesu waaye dénk naa leen lii na seeni jëf yelloo ak li kirist digle ci xabaar bu baax bi noonu su ma leen seetsee mbaam a dégg seen mbir rekk dinaa xam ni yéen a ngi dëgër ci menn xel bokk benn xalaat ci bëre luy saxal dëggu xabaar bu baax bi te bañ a tiit dara ndax noon yi leen di xëbal màndarga la muy wone ne aji sànku lañu di màndarga yit ne aji mucc ngeen di mucc gu jóge ci yàlla ndaxte yàlla may na leen ngeen gëm kirist rax ca dolli ngeen sonn ndax turam di wéy ci bëre bi ngeen gisoon ci man te dégg léegi sama mbir Filip saar ñaar sunu kirist maye fit nag ak mbëggeel guy defal sunu xol nu amee cër ci xel mu sell mi su amee cofeel ak yërmande ci sunu bokk ci moom kon mottali leen sama mbég ci bokk benn xalaat ak genn mbëggeel benn bakkan ak menn xel bu leen def dara ci kaw wut aw tur walla wonu waaye jiital leen seeni moroom ci woyof bu leen yem ci toppatoo seen bopp rekk waaye boole leen ci seeni moroom te ngeen soloo xel mi nekkoon ci kirist yeesu njaal ben ga fekk na kirist yor melo yàlla waaye àkkumoowul taxawaayam ci li mu méngoo ak yàlla waaye daa wàcce boppam ba tolloog nit ñi def boppam surga te bi mu yoree bindu nit daa suufeel boppam di dégg ndigal ba joxe boppam ñu daaj ko sax ci bant moo tax yàlla kaweel ko lool jox ko tur wi tiim yépp ngir turu yéesoo tax ñépp sukk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf te ñépp bokk genn kàddu naan Yeesu Kirist mooy borom bi ci màggu yàlla baay bi noonu samay soppe xam naa ni musuleen a jóg ci dégg ndigal waxuma sax bi ma nekkee ak yéen rekk waaye rawetina bi ma leen soree kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen biral seen mucc ci seeni jëf te def ko ci ragal yàlla gu dëggu ndaxte yàlla ci boppam mooy jëf ci yéen ngir ngeen fonk coobareem te di ko jëfe lépp lu ngeen di def nag bu leen ci boole xultu mbaaxuloo noonu dingeen am xol bu laab bu àndul ak ŋàññ di gune yàlla yu amul sikk ci biir jamono ju yàqu tërëb dangeen di leer ci seen biir ni weer ci àddina si di jottali kàddu dund gi noonu bu bésu kirist ñëwee dinaa mëna a bég xam ne dawuma lu amul njariñ te sonnuma cig neen te bu sama deret waree sax ngir seen ngëm mat sëkk ma mel ni naan gu nu boole ak sarax su jëm ci yàlla ba tey bég naa ci te dinaa ci bégati yéen itam nag bég leen waaw fekk si leen ma ci sama mbég gannaaw loolu bu sobee borom bi yeesu yaakaar naa ni dinaa leen yónnee timote balaa yàgg ngir sama xel dal ci xam nan ngeen def ndaxte amu fi kenn ginnaaw timote ku bokk ak man xalaat te fonk leen bu wér ñi ci des ñépp seen bopp lañuy xalaat waaye du mbiri Yeesu Kirist waaye xam ngeen takkuteg timote ci ni mu àndee ak man ci tas xabaar bu baax bi ni doom di taxawa baayam moom laa yaakaare yónni fii yéen nag waxtu ma yégee nu sama mbir di tëdde waaye wóor na ma ni boroom bi dina ma may man ci sama bopp ma seet si leen balaa yàgg ci lu jëm ci sama mbokk Epafrodit nag mi sama nawle ci liggéey bi ak ci xeex bi te di seen ndaw ci faj samay soxla jàpp naa ne war naa leen koo delloo ndaxte namm na leen lool te tiisoo na li ngeen yëg jagadeem ci dëgg-dëgg wappoon na ba xawa dee waaye yàlla yërëm na ko ba fëgg boppam rax ca dolli sigil na ma manitam ngir ma bañ a am tiis ci kaw tiis noonu delloo naa leen ko ci lu gaaw ngir ñëwam bégal seen xol te manitam sama xol feex teeru ko teeru bu rafet nag ngir borom bi te teral ñi mel ni moom ndaxte liggéeyal na kirist ba riisu dee te gar na bakkanam ci taxawal leen ci toppatoo bi ngeen yéene woon ci man Filip ñett kon nag samay mbokk bég leen ci borom bi duma sonn mukk ci di leen ko wax ndax seen mucc moo ci aju moytu leen xaj yi waaw moytu leen ñiy jëfe lu bon ñoom ñi seen xarafal weesuwul wàññi yaramu nit ndaxte nun noo xaraf tigi nun ñiy màggal yàlla ci xel mu sell mi di damu ci kirist yeesu te amunu jenn yaakaar ci matuk nit ba tey mënoon naa am yaakaar ci sama bopp su nit doon damu maa ciy raw xarafoon naa ci ayu bés ga bokk ci bànni israyil ci giiru benyamin di hébreu ci deret ak ci meen bu dee ci yoonu musaa ngeen bëgg a wax ci xab pharisien la bokkoon bu dee it ci mbirum farlu daan na fitnaal mbooloom ñi gëm kirist bu dee ci njub ci sàmm yoon awma benn gàkk waaye loolu lépp lu ma tegoon ay njariñ fa kanam yàlla dëddu naa ko ngir kirist rax ca dolli dëddu naa lépp ngir xéewali xam kirist yéesu sama boroom di xam-xam bu xóot ba xel mënu koo takk moo tax ñàkk naa sama lépp te def ko ni mbaliit ngir am cër ci kirist na ma yàlla fekk ci moom waxuma ci njub gu aju ci sàmm yoon waaye gu aju ci gëm kirist maanaam njub gu nu yàlla sol ci kaw ngëm moom lay ittewoo xam ak doole ji ànd ak ndekkiteem ma bokk ci ay coonoom ba fekk ko ci deeyam ngir mën a séddu ci ndekkiteem su ma ko mënee am waxuma ne jagoon naa ko ba noppi waxuma it ne aji mat waaye maa ngi daw ngir jot li tax kirist jël ma mbokk yi gëmuma ni jot naa ko ba noppi waaye lenn lii laay def fàtte li ma weesu jublu ci li féete kanam di daw yenn mujj ga ngir jot li ma yàlla taxawoo di cër bi ma yàlla wooyee te dencal ma ko ci asamaan ci darajey kirist yeesu nun ñi mat nag nanu xalaat loolu te su ngeen ci amee werantee xol yàlla dina leen ko leeralal li am daal fa seen ngëm tolloo na fa seen jëf àgg kon nag mbokk yi topp leen ma te xool ñiy roy ci li nu tëral diirib sunu ngan ci yéen ndaxte jëfu ñu bari juyoo ak dee gi kirist dee loolu wax naa leen ko ba tàyyi maa ngi koy waxaat léegi ak i jooy alku ñuy mujje ñoom ñiy jaami seen biir di wonoo lu ruslu tey wut yi fi àddina rekk waaye nun waa asamaan lanu te noo ngi xaar borom bi Yeesu Kirist jóge fa musal si nu noonu dina soppi sunu yaram wu toroxlu def ko ni yaramam wi ànd ak ndam dëppoo kàttanam gi ko mën a nootal mbindeef yépp Filip saar kon nag yéen samay mbokk ñi bëgg te namm leen di sama mbég ak sama kaalaak ndam jàpp leen bu dëgër noonu ci borom bi soppe yi ci lu jëm ci ewodi ak santis maa ngi leen di ñaan ñu bokk benn xalaat ci borom bi te yow sama nawle bu wér nanga dimbali jigéen ñooñu xeexoon ci sama wet ci tas xabaar bu baax bi boole ci clémaŋ ak sama yeneeni nawle ñoom ñi yàlla bind seeni tur ci téere dund ba dee bég ci borom bi maa ngi koy waxati bég leen na seen lewet leer ñépp borom bi jege na bu leen jaaxle ci dara waaye ci lépp wéetal leen yàlla diis ko seeni soxla ci ñaan gu ànd ak cant noonu jàmmu yàlla ji xel mënta takk dina aar seeni xol ak seeni xalaat ci dara darajey kirist yéesu léegi nag mbokk yi ne seen xalaat jublu ci lii lu dëggu lu jekk lu jub lu sell lu rafet ak lu faydawu su fi amee lu baax mbaa lu mat a naw xalaat leen ko li ngeen jàng ci man te nangu ko li ngeen dégg ci man te gis ko jëfe leen ko kon yàllaay jàmm dina ànd ak yéen sama xol sedd na guy ci borom bi ci ni ngeen yeesale seen ndimbal ci man xam naa ni amoon ngeen yéene ji waaye man gi moo fi nekkul woon ba tey soxla taxul ma waxe nii ndaxte jàng naa doylu ci mbir mu ma mën a dab miin naa ñàkk man naa naataange ci fépp ak ci lépp yàlla def na ba sama xol toj ci suur ak xiif barele ak néewle man naa lépp ci ndimbalu aji dooleel ji waaye teewul taxawu bi ngeen ma taxawu ci sama tiis jëf ju rafet la yéen waa Filip xam ngeen ne bi ngeen jëkkee xam xabaar bu baax bi te ma jóge diiwaanu Masedowen benn mbooloo àndul woon ak man ci mbirum joxlante ndimbal mu dul yéen dong ba ma nekkee dëkku Tesalonik sax yónnee ngeen ay yooni yoon ngir faj samay soxla loolu tekkiwul ne damay sàkku ay ndimbal ci yéen waaye dama bëgg rekk seen denc yokku fa yàlla fi mu ne jot naa li ma aajowoo lépp ba maa ngi ci naataange li ngeen ma yónnee ci loxooy Epafrodit doy na sëkk ni xetu laj ko leen la mel ci man di sarax su neex yàlla te mu nangu ko te yàlla sama boroom mi denc ci Kirist Yeesu xéewal yu dul jeex dina faj seeni soxla yépp na yàlla sunu baay yelloo ndam ba fàww amiin nuyu leen ma gaayi kirist yeesu yu sell yépp mbokk yi ànd ak man ñu ngi leen di nuyu te it yi yàlla yu sell yépp ñu ngi leen di nuyu rawatina nag ñi nekk kër buur bi sesaar ne yiwu borom bi yeesu kirist ànd ak seen xel